بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لرب العالمين والسلامان على الهادي الأمين نبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wajcal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dellusiwaat nanu ti ndimbalal sunu boroom subhaanahu wa taala ak kartanam ci laaj yi nga xam ne mbokk yi dañ koo baaxoo dugal insha allah di ci jéem a tontu tey sukkandiku ci mazhabu imaamu malikin rahimahullahu taala waaye nag di bàyyi xel mboolem waxi waroom xam-xam ya ñuy sukkandikoo ak a doyloo seeni wax bu dee laaj bu njëkk bi mbokk mi laaj ne génn góor a ngi nii goo xam ne moom dafa wut daal ab place ca jàkka ja nga xam ne moom bu ñëwee foofa lay taxaw même bu fekkoon ne sax sàppe si àggul foofa bu ñëwee foofa rek lay taxaw euh, bu fekkoo nit palaasam boobee duggul ci biir jàkka ja maanaam duggul ci biir sàppeet ni ki dañoo def ñaari sàppeet ak siwul ci moom du tax moom mu àndu dem ca sàppa ya moom daal fa mu taxaw rek lay taxaw waaw góor gu baax googee day warees na ko laabiire rawatina jàkka ji ñi nga xam ne ñoo ko yore ndax xam nga jàkka day am responsable boo demee ci jumaa yi bu ñuy julli ajuma da ngay gis am na ñoo xam ne ñoo yor mbirum jàkka ji ñooñe nag nekkul ne dañuy bàyyi nit ñi ñuy doxe nu leen neex déedéet déedéet kon ñoom ñoo war a organiser jàkka ji ku ñëw ñoo naa la bisimilah taxawal fii boo toogee foo warta toog boo noppee ñu la sëñ bi ñëwal lii insha allah euh, kon kookee ku ñu war a laabiire la ndax la muy def baaxut ndax jàkka moom kenn amu fa place xataa imaam sax gis nga bu xawee tardé tuuti ñu daal di jiital keneen moo tax saa borom ci téere bi ne wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada jàkka daal yàlla rekk moo ko moom buñ ci wutal keneen ab cër ku dul yàlla saa waa kon nag kooku moom la muy def mi ngay def njuumte yonent bi yàlla yónni woon sallallahu alayhi wa sallama daan na wax bu ñuy julli na sawwu sufuufakum fa inna tasfiya fa inna taswiyata safi min tamaami solaati ci beneen riwaaya mu ne fa inna taswiyata sufuufi min iqa min iqaamati solaati bu masaan di julli danaan yemale leen sàppe yi waaw jëkkal leen sàppe yi mbagg ak mbagg tànk ak tànk xanaa xamu leen ne sàppe si jub gi muy jub lool daa bokk ci liy defar julli gi daa bokk ci liy waajal liy waajal julli gi am na beneen xadis boo xam da tëkkoo istawu wala taxtalifu fa taxtalifa xulubukum rawaahu muslim ndax naan jubbanti leen seen sàppa yi yéen ñëpp ngeen tolloo bu leen di wuute kee taxaw kee taxaw loolu bu ngeen ko defee rek seen xol yi seen xol yi mën naa mën naa wuute ngaa kon nag góor googu la muy def euh, ñàkk a xam kon kooka nañ ko laa biire ñeeyor jàkka ja nañ ko jubbanti rawate na imaam ji nga xam ne mooy jiite yonente bi salaa salaam buñ masaan liqaam ba noppi dana siggi xool sàppe si ku mu ci gis nga dugg te waroo dugg mu xëcc la ku mu gis nga arrière bu mu ëpp ñu mu xëcc la xool tànk yi kon loolu rôlu imaam la imaam yi nag léegi defatuñ ko nay ñëw rek daal di kàbbar déedéet imaam daa rôlam na foofu bala moo kàbbar war naa siggi xool sàppe xool ko bu baax a baax a baax lu ci jub kon nag bu fekkoon imaam dafay jiite def na rôlam bu siggee gis ko danaa bisimilah sëriñ bi ñëwal nii ah bu fekkee daa bañ wala mu yore yeneen jikko nag <laughs> ni ki njëkkee njóobeen yi ñu xam ne kon loola leneen la ñu ci jën kooku moo xam ne julli kese taxu koo jóg wala am na ay jafe-jafe ñu xool luy mbiram ñu lijjanti ko wallahu aalam bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj ne ab imaam a ngi nii boo xam ne moom kat buy ñëw di julli day indaale ay xale yu bari xale yi nag dañoo desee yeewu maanaam dañoo nekk ay xale lool mbokk mi laaj nee na yenn xale yi sax bu ñu duggee da ngay gis xetuk ay tuur ndox di la xeeñ nga xam ne xëy na duñ waaj duñ leen waajal waaw loolu de moom njuumte la bu bàyyi ko ci imaam nag mu nekk njuumte lu gën a rëy ndax imaam day koo xam ne royukaay la daa war di def ñuy xool ci moom di roy waaye bu fekkee moom ma war a def loola nag mooy dëngal kon loolu day mujj doon musiba mooy mujj doon musiba adduna day tukki waxalaa kulli xaal dëgg la gone mënees na koo tàmmal julli yonent bi sallallahu alayhi nee na ci xadis ngone yi bu ñu amee juróom-ñaari at nañ leen tàmbali di leen digal julli te yem ci ndigal la rek bu julli jotee ñu la ko ñu la ko demal julli bu amee fukki at nag nañ ko koy sant te wut ab yar bu sew sewaan di ko ko caw di ko ci julli loo tabaarkàlla bu dee ca jàkka jaat mu teewe ko ayut waaye nag dañ ciy sart su boobaa na nekk gone gu yeewu na nekk gone gu yeewu mooy bu mu nekk gone goo xam day dem ci jàkka ja di fo wala muy wax wala muy reeloo nit ñi wala mu dem fa ba yàgg di jooy wala mu di fa tuur ndox jàkka day barab bu sell la ñu war koo toppatoo kon nag koo xam ne ay yéreem dafa takk sobe nga defi indi xale yu mel noona loola moom jaaduwut loolu jaaduwut borom risaala bi muy jàngale sàppe eh, dafa wax ne gone mën naa ñëw bokk ci julli gi bokk ci sàppe si waaye kañ mu ne bu fekkee ne yeewu na moo tax borom xalil nee na wa sabiyun aqala al qurbata kal gone daal bu fekkee xam na luy julli xam luy jaamu yàlla kooka moom dañ koy jàppee comme baalix muy dugg ci si bu fekkee nag daa nekk koo xam ne xamut loola wala day ñëw ci jàkka ji di perturber kooka nag bu buñ ko indi ci jàkka ji wala boog nañ leen teg ca nañ leen teg ca ginnaaw mu ne imaam joojee loola ma ngay def njuumte bu dee noonu la demee wallahu aalamu bu dee laaj bi ci mbokk mi leerlu ne moom kat dañ koo jël ci benn place mu nekk ab gérant maanaam jox ko benn palaas moom muy saytu palaas bi jiite ko waaye nee boroom borom palaas bi nag day ñëw di fi indi ay euh, xeetu ay béjjën ak yooyu mooy comme ni ñu ko aadawa gis ci jaaykat yu bari jaaykat yu bari andi ay béjjënam ak ay nangam yoo xam ne xam na ne lii moom ci lislaam dëgërut muy laaj moom ma nga xam ne fa liggéey di gérer place moom baa loola du tax ab liggéeyam yàqu euh, tontu li mooy déedéet loola du tax ab liggéeyam yàqu ndax moom lañ ko sant dagan na te moom lay def mooy daal bu xëyee dana ñëw liggéey ci heure bu dee dañ koy bindloo mu bind bu dee li muy jaay it dagan na loolu yépp ci sàrtul la muy jaay dagan na kon moom lañ koy defloo ak liggéey ba la lislaam di xool am naa borom palaas ba yemi def nga xam ne yooyu engagé wu ko incha allah loolu dara du ko topp hmm, loolu nag siiw na lool daanaka néewaana palaas boo dem fi ko ñu wékk fi ab béjjën jël karaw def yooyu yëpp li muy tekki mooy ngëm yàlla gu oyof yonente bi yàlla yónnoon sallallahu alayhi wa nee na man taallaqa shay'an wukkila ilayhi kuy jël mbir di ko takk ca def sa yaakaar yàlla bàyyi la ak loola ah, la ak loola euh, nag wa ala llahi fatawakkalu la alquran wax na ko defe fa saa bi rabbika almuini zastiaan wa in ca aljawharu nafis booy wut ndimbal wut ko ci yàlla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 seedeloo ko yàlla rek waaye nag moom place ba daal na fay liggéey lu dagan rek loolu la ñuy xool wallahu aalam bu dee laaj bi tege mbokk mi di leerlu nee na e, góor a ngi nii goo xam ne dafa njaaloo ak jigéen wala iyaasu billah na ko yàlla jéggal te jéggal nu bi mu njaaloog moom ndaw sa daat cay jële ab ëmb ba mu amee doom mu bëgg koo takk nu ne ko faaw dangay xaar eh, ñeent fukki fan da xaar quarante jours waaw lu mel noonu day wax ju siiw la waaye nag du wax ju tegu ci xam-xam du wax ju tegu ci xam du wax ju wér xëy na aadala rek nit ñi di ko baaxoo wax léeg dañ koy déggee ci ku xamut kooka dem làmbale ko nit ñi ba nit ñi def ko muy seen aada eh, dëgg la njaaloo bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg yal ci yàlla musal Euh, li ñuy njëkk a laabiire mbokk mii di laaj wala ba ki muy laajal ki nga xam ne moo def njaalo gi mooy bala moo yitte bëgg naa takk ndaw seeg damaa dem ñu ne ma 40 jours na yitte woo bàkkaaram ba noppi bokk na ci liy alagee mooy xeeb bàkkaar te ki njaalo mu rëy lool mu waroon koo jooy waroon koo tiis kooku waroon naa tal leneen lu dul naan nu may na jooy ay bàkkaaram ba noppi naka noonu tuub dellu ci yàlla والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ci sartub walam yusirru ala ma faalu ñi def lu ñaaw lum rëy rëy rëy buñ ca delloo ginnaaw tuub te saxuñu ca bàkkaar ba yàlla jéggal leen kon bala moo wax wax nu may defa takk kook dañ ne ma nàngam na jéem a tuub ay bàkkaaram moom ndaw si boroom xam-xam yi nag am nañu ne eh, kooku du ko mën a takk ndax ñoom dañuy sukkandiku ci azzaani laa yankihu illa zaaniyatan illa zaaniyatan aw mushrik ab njaalokat moom tabarkàlla dee su ko mën a takk ci masabu imaam ahmad noonu lañ koy déggee duñ ko tawil ñoom mhm. wax laa kulli xal bu dee ci masabu imaamu malik kooka mën na koo takk waaye daal ginnaaw bu ñu defee seenu tuub loola nañ ko jiital ba noppi bu fekkee nag ëmb bi day ëmb boo xam ne jigéen ji ci boppam ab célibataire la woon ñu bari dañuy daanu ci masala bu mel noonu bu dee jigéen ji ab célibataire la ñu daat koy wannu loo lor kooko moom bu amee doom rek jeex na istibra la doon def jeex na tàkk mënees na koo takk jërul ñuy xaar dara ginnaaw bu ñu tuubee ba noppi nag seen bàkkaar ndax bàkkaar bi moom ma nga fa moom moo gën a rëy moom la war a yittewoo waaye bu dee ci masala fiq bi moom bu amee doom rek manees na koo takk jërut ñeent fukki fan ak leneen a ci yem xanaa ñeent fukki fan yi nag yem nañ ko lool da dégg jigéen ñi tamit bu ñuy gis bu ñu amee doom it da ngay dégg ñu naan doo julli li fekk sama 40 jours matikut loolu it njuumte la xam fu ñu jëlee 40 jours yooyu njuumte la jigéen bu amee doom dereti wasin ja rek lay topp ñu koy tudde dam mun nifaas dereje bu arrêté donte benn fan wala ñaari fan wala ba mu génnee ci hôpital ba toppatu ko daa war a sangu tey tàmbali def ay jaamu yàlla kooku amul benn ñeent fukki ñeent fukki fan day bokk ci aada yi ñeen fukki fan ku faatu am na ñeen fukki fan lu ne lu ñu wutal ko ñeen fukk wala xalaa ko loolu amul cosaan ci lislaam euh, kon nag euh, jigéen ju ëmb ëmbum njaalo bu amee doom jeex na istibra la def jeex na ku ko bëgg a takk rek insha allah mën na koo takk masala bi ñu koy jaawaleel nag mooy bu fekkoon ne ndaw sa dafa am jëkkër waaw ah, kay fekkoon dafa am jëkkër mu ëmb ëmb boo xam ne duñ ko aj jëkkër ja ëmbum njaalo jëkkër ji wëlbati ko fase ko ah su boobaa nag jigéen joojee moom bu amee doom it lu tax mu mën a dem kooku faaw day iddaw ndax dañ koo fase moom la cheikh Mouhamad al Bichar na fa in lam yulxaqa taataddu baada al wadai kal mutallaqa bu fekkee jigéen ñi daa amoon jëkkër tey ëmb bii duñ ko aj mu delloo ci jëkkër ji ëmbum njaalo la kooku moom day am doom ba noppi doo ko iddaw kooku moom bu amee doom kenn mënu koo takk li feek iddawul ndax fase mañ ko fase woon moo tax waaye bu fekkee nag istibra dong moo ko waroon te mooy ëmbum jaalo bi bu amee doom rek insha allah jeex na manees na ko may ñu bàyyi ci xel sew sew la wallahu aalam bismillah bu dee laaju mbokk mi ci tegu mbokk mi di leerlu nee na taxiyatul masjidi muy boo duggee ci jàkka ji ñaari ràkka yi ngay jaamoo yàlla ñu di ko tudde nuyu jàkka ji te fekk jaamu yàlla rek la ndax buy dem ca jàkka ja di julli suba bu ko xasee ba def benn yoon rek ndax jëratul mu koy def nga ne kon buy julli ci tisbaar takkusaan du ko def wala boog heure bu duggee di julli ci da koy def mbokk mi nag ci biir laaj bi mel na ne ku yàlla defal tawféex la tawféex la ndax nee na julli yépp moom ca jàkka ji la koy jullee te loolu noonu lañ bëgg ab jullit mel ni jullit mel ni jullee ca ca jàkka ja doon da ci mazhabu malik du waajib waaye nag am na ñu ko def muy waajib te mazhabu malik soññee nañ ci lool waxalaa kulli xaal tontub laaju mbokk mi dañ naan ko heure boo duggee ca jàkka ja rek te mu nekk waxtu woo dagana naafila da ngay def taxiyatul masjid yi bu dee ci mazhabu malik mhm. bu dee ci suba gi bu dee ci suba gi ak wuute am na ci mazhabu Malik dañu wax ne bu fekkee ne danga dem ca jàkka ja nga xam ne sa ñaari rakkee fajar fa nga koy jullee noonu nañ salaat nga dem ca jàkka ja kooko su boobaa bi ngay julli sa ñaari rakkee fajar da ci ciy mu nekkaale tahiyatul masjid yi muy ñaari xe wenn xeer wu jëm ñaari picc wenn xeer jëm ñaari picc xanaa boo yéene moom da boo duggee rek da ngay julli ñaari rakkee fajar waaye nga yéene waale ci tahiyatul masjid maanaam bu ñaari rakkay jeexee rek da ngay toog nag xaar julli jot ñu ne xam nga julli teewul ci teewul ci mazhab bi teewul ci mazhab bi am na ñu jàpp ne teewul nag ci mazhab bi am na ñu euh, gis ne maanaam day def ñeenti rakka day njëkk a julli ñaari rakka yéene ci tahiyatul masjid bu noppee nag doo ko julli ñaar rakkee fajar waaye wax ju njëkk ji nag mooy la ñuy sukkandikoo mooy la gën a dëgër ci masab bi bu fekkee nag da ngaa jullee ñaari rakkee fajar sa kër dañoo nodd nodduk salaatu ndax bala ngaa mën a julli ñaar rakkee fajar fokk ñu nodd nodduk salaatu dañ ci bàyyi xel am ñoo xam ne dañuy yeewu fajar rek tàmbali koo julli fekk nodduguñu nodduk salaatu mooy nodd gu mujj bu dee nag dañoo nodd nodduk salaatu nga jullee ko sa kër fekk nag jullee ko ci jàkka ja rek mooy li gën moom lañ gën a taamu waaye boo ko jullee sa kër doo ko dem jàkka ja boo demee am na ñu ne da ngay def tahiyatul yi doo ko toog am na ñu ne déedéet da ngay toog rek ba tey wax jooju mooy ji ñu tànn ci mazhab bi ah, ndax lan yonante bi daa te daa ne ginnaaw jullik fajar amatul naafi la tey jullee nga fajar sa kër ba noppi wala kulli xaal ak woote la ci mazhab bi ngir ñëwaat ci laaj bi daal mooy heure boo duggee ci jàkka ji rek dangay def tax def tahiyatul masjidi bu la wax defoon naa ko ci suba yonent bi yàlla yónnoon bi mu koy jàngale ci xadis bi isa la jëfandikoo isaa daxala axadakumul mas isaa daxala axadukum axadukumul masjida mu ne falaa yajlis xataa yusalli rakaatayn wala ba xataa yarkaxa rakaatayn ku ci dugg jàkka saa yoo ngeen duggee ci jàkka ja rek bu leen toog li fekk defu leen ñaari rakka ba noppi ngeen nuyoo ko jàkka ji même boo toogoon nit du faat boo ko fàtte ba toog dangay jóge jóg rek daal koy daal koy def ba mu des nag lu mel ne jullit timis jullit timis moom day nekk ci ginnaaw takkusaan moom boo duggee dañuy liqaam rek julli moo tax ngay gis ñenn ñi duñ nangoo dugg ci jàkka ji dañuy xaar ba ñuy liqaam wala ba ñuy waaj liqaam ñu dugg rek liqaam waaye ku duggoo it loola du tax nga sañe julli ndax lan loola ci ginnaaw takkusaan la te ginnaaw takkusaan ba bëggee sëlmal timis ci yoonu Maalik kooka amul ak julli ba dem ci yeneen masahib nag nangu nañ ko ñoom daal heure boo duggee jàkka rek da nga def tahiyatul masjid moo xam waxtu wa dañ koy tere moo xam teerewuñ ko kon nag boo julli jee suba ak nga julli jee ak julli ji takkusaan ak julli ji gee heure boo duggee jàkka ja rek na nga def ñaari rakka nuyoo ko jàkka ji ba noppi wallahu aalam bu dee laaj bi tege mbokk mi di leerlu ne jigéen a ngi nii joo xam ne dafa mel ne daal daa bëgg boroom këram fase ko ba tax na muy tooñ boroom këram ak di ko cokkaas bu dee mbokk mi laaj nee na lim ci jublu mooy ndax bu ko fasee mu mën a jël bagage yi nekk ci kër gi yépp mën a dem xam naa euh, li waral lii kon mooy li nga xam ne aada la ci réew mi nga xam ne dañaan jigéen bu fekkee borom kër bi moo ko fase nga ne baat bi ci borom kër bi la jógee sañ naa jël bagage yi nekk ci kër gépp bu fekkee nag ndaw si ci boppam moo ñaan baat kon du bu dara lii daal moo ko fi indi gis nga aada ni muy yàqe lii doo nga tax ndaw si di def li muy def te fekk lii amut amut ci lislaam wérut fase moom tekkiwul da ngay yóbbu bagage wala da ngay bàyyi bagage déedéet parce que moom mooy dem ngeen ba mënu leen dem ngeen di tàqali koo kooku alxuraan lam ca santaane mooy fa imsaakum bi maaruf aw tasrixum bi ihsaan bu ngeen demee ba xam nga mën ngeen ànd ànd leen tam rafet bu mëntat nekk na ngeen tàqali ko waaye na waaye na rafet fa matticuuhunna wa sarri sarrixuuhunna saraaxan jamila na ngeen leen joxub yóbbal sax yeewi leen yeewi goo xam ne yeewi gu rafet lay doon kon jigéen ji loolu mu jàpp te ah, mu bokk ci aaday Sénégal ñu koy wax loolu nekkul lu wér jigéen boo ko mayee baatit lam sañ a yóbbu mooy lam moom lépp loo xam ne xëy na yaa ko ko mayoon yaa ko ko jëndaloon sañ na koo yóbbu bu buubee bagage yëpp yóbbu ko loolu moom sàcc la jël alali jàmbur wala xas bu kooku bu ëllëgee yoo nga xam danañ ko regle mu fay ko alali jàmbur la naka noonu jigéen ji itam bu fekkee dem na ba mënut mu ñaan baat ngir am na ngànt ngir am na ngànt su boobaa tamit mboolem luñ ko lu moomoon da koy yóbbu kenn du ko wax na ko da nga fiy bàyyi doo ko jël moom bu fekkee dañoo téye ay bagaasam ne ko doo yóbbu lii ndax yaa ñaan baat loolu dañoo dañoo jël alalam ñoo ñu lekk nañ alalam ci ay caaxaan alquran nee noon laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatili bu leen lekkante seen alale ci ay ak neen ay caaxaan kon suba alal ja moo ko moom ñee dañoo nangu alalam rek waaye moo ko moom danañ ko ko fay ëllëg yow mal kon nañu wattandiku di jëfandikoo aada yii loola wéru jigéen ji ñaan baat ak ñu may ko baat loola amul différence ci lislaam du tee lépp lu moom da koy jël du taxit mu sañ a jël lu mu moomut kon lool looloo tax koo def loola aada waaye wérut ci diine même bu ko jëkkër ji fase woon bu jëlee alale jàmbur dafa sàcc alale jàmbur rek koo ko dëggalul ñaareel ba bu fekkee ne dafa de gis ne mën a tuta toog ci sëy bi ngir am na ngànt kooko na ko def ci ak rafetal na waxtaanu boroom këram mu yeewi ko ci jàmm ak salaam am maa nag di tooñ ma zulumaatun yawmal qiyaama tooñ bu ëllëgee boo duggee ci bàmmeel ak lëndëm la ko yàllay soppi boo demee bis bi ak lëndëm lay doon di la yàqal kon tooñ baaxut tooñ baaxut bëgg ngaa dem kay loolu bu mu tax nga tooñ demal na ko damaa bëgg a dem rek mu yomb na rafet ngir ëllëg bu ngeen jàkkaarloo nga mën a siggi nga mën a siggi bu fekkee nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na jëpp jigéen joo xam ne yaa ngi naqaral sa boroom kër ba boroom kër nga tëdd guddi mer maanaam xolam tàng ci jigéen joojee nee na jigéen joojee malaaka yi dañ koy fanaan rëbb yàlla na ci yàlla musal bu fekkee tamit ñaan nga bi ñaan baat nekkul lu ñoo maanaam nekkul du yitte jigéen sañ naa ñaan baat waaye na nekk lan na nekk ngànt waaye bu fekkee daa jekk-jekk di ñaan baat ngir alali adduna wala lu amul njariñ am na xadis bu ñu ca eh, saxaaba ba sawbaan mu ne yonent bi nee na ayuma mraa saalat zawjaha talaaqan fi gayri ma fa xaraamun alayha jigéen ju jekk-jekk di ñaan baat amoo ngànt nee na jigéen joojee na ko wóor ne xeetu àjjana araam na ko waxuma dugg àjjana du fóontu xet kon bu dee day ñaan baat te amul ngànt gis nga li ci yonante bi wax tooñ gi muy tooñ boroom këram ah, gis nga li ci xadis euh, bi wax te tooñ baaxut tayit li tax mu di ko defit loola sariya nanguwu ko même bu amoon bu jëlee alal ji tamit alal jam lekk alal sàcc la alal ju baaxut rek la kon yëpp daje na ci léegi nag bu dee ngànt tax na dem waxtaan moom baalu ko àq jëkkër ja baalu ko àq mu dem mu dem waaye nag tooñ daal baaxut lépp lu nit ki àdduna dafa gàtt lu fi nit ki def na rafet bu ëllëgee ñu di ko ne dañ koy nettaliwaat rek yàlla bu ngeen am ay doom nag bu dee laaj bi tegee mbokk mi laaj ku forlo lu mel ne ay banaana yi nga xam daa gaaw yàqu lu mu koy téye maanaam diir bi mu koy téye waaye diir bi mu koy téye mooy diir bi ñu mën a garder ñoom rek ku ne xam na ne ay banaana ak yu mel noonu duñ mën a yàgg euh, daanaka dañuy aju dañuy laaj toppatoo bu yàggee ñu nëpp wala ñu yàqu kon diir bu gàtt bi nga xam ne moom lañ mën a téye banaana ak ay xeetu fruits ak xeetu lijum diir boobu lañ koy téye laaj ko fañ ko war a laaj bu feeñut incha allah kooka mën na ko saraxe yéene ko boroom wala bu ko woo mu saraxoo ko moom bu fekkoon nag alal la mbokk mi nee na bu dee alal la moom alal xam nga gawut a yàqu bu dee lu mel ni xaalis ak yu mel noonu wala matériel boo xam ne du yàqu kooka su boobaa mën na koo téye ba at barab ba ba mu ko foree mu laajte ko foofa jël seeni numéro bu fekkee alal ji sax am na solo na ci def communiqué su ko defee bu borom feeñee mën na koo delloo lam ko communiqué bu ko defut ngir yàlla wallahu taala laaj bi ci tege mbokk mi laaj ñoo xam ne dañuy dajale alal lu mel ni ab natt incha allah ci misaal ñu ne kenn ku nekk day joxe cinq cent mille bu at mii ñu daj boole lépp jox kenn mu dem aji mag bu ëllëgee ñu jox keneen mu aji mag muy laaj luy àtte bi àtte bi mooy dagan na tayit lu rafet la bu fekkee dugaluñ ci lenn luy sariya yi bañ saa borom nee na ci téere bi wa alal birri wattaqwa day leen dimbale dimbalante ci seen biir ci lépp luy indi ak ragal yàlla aku yiw te aw yiw la dëgg la aj maaka moom man istataa ilayhi sabila kooku lañ ko war kooku lañ ko def mu nekk lu war ci moom koo xam ne aggul foofa nekkul lu war bu ko neexee nag mën naa góor wut ay moyens boppam dem loolu kenn terewu ko kon nag loolu ñuy def mooy dimbalante seen biir ci loo xam ne bu ñu ko defutoon mën naa am du leen yomb waaye nag nañ góor-góor ba nañ koy defee na sell bu ci dara ci ay xeetu luwaa wala dara lu koy tënk loo xam ne da koy yàq bu mu ca bokk wallahu aalam laaj bi ñu mbokk mi laaj na dafa am ngénte ci weeru koor am ñu ñëw ca ngénte la nag waaye ñoom dañoo am ngànt ni ki jigéen joo xam ne day gis deret baax masalan wala koo xam ne dagan na mu bañ a woor ndax dafa jóge cib tukki maanaam fa mu jóge ak fii mën na am tukki nga ne ba mu ñëwee wóorul wala ku feebar nga ne mënta woor muy laaj ndax ñoom sañ na leen a gànnale ah waaw waaw sañ na leen a gànnale yonent bi yàlla yónni woon nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu ku gëm yàlla gëm ne da dee dajeek moom boo amee gan dee ko dee ko tere waaye nag su boobaa nañ ko nëbb nañ ko nëbb ngir xormay weer wi ak xormay jullit ña fa nekk te wóoruñu nekk na leen dugal ci ab néeg bu làqu insha allah fexe ba ñu xéewlu ci sekkere te duñu lor mbokk jullit ya ca des insha allah waaye ñoom it ñu bañ a loru kon sañ na leen a sañ na leen a ganale insha allah ndax ñoom dañoo dañoo amee ngànt laaj bi tege mbokk mi laaj ne asaka ndax nit ki sañ na koo yëkkati di ko tabaxee jàkka wala mu fekk jàkka ju ñuy tabax mu dugal ko ci déedéet déedéet euh, asaka moom saa borom daa tënk innama sadaqaatu innama ne ñu tufidul xasra day tënk day wax ne asaka ñii dongu lañ ko mën a jox rawate na nag ña ko gën a yeeyoo mooy la xam nga tabax jàkka jox dimb euh, dimbale jullit bu ñàkk moo ko ëpp doole li tabax jàkka di baax baax hmm? li tabax jàkka jàkka jàkka di baax baax boo demee ci Masaalikul Jinaan Sëñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na benn tibu ñam nga jox ko jullit bu xiif moo gën tabax junni jàkka kon nag way ñàkk ñi mënuñu fee nekk ñuy jël seen alal alal joo xam ne ñoom la ko yàlla jox tudd seen tur ci alxuraan nga teggi leen fi dem di ko tabaxee jàkka na jàkka yi bari na jàkka yi nekkut lu mënta ñàkk bari na lool waaye nag ñi ñàkk bari nañu su boobaa nag boo bàyyee ñi ñàkk joxoo leen ko te ñoom yàlla ñoom la tudd ne joxal ma ko ñii nga bàyyi leen fi dem di ko dugal foo xam ne yàlla sën yàlla bi muy tudd asaka néew dugal la ma ko ci jàkka yi ci eh, wa fi sabilillahi jooju ak ak wa fi sabilillahi jëm tudd borom xam-xam yëpp dëppoo nañu al jihaad lañ ca jublu bu fekkoon nag dem nañ ba amuñu kuñ ko jox ak yu mel noona borom xam-xam yi jamono mën nañu ubbee dugal ko ci jàkka yeeg jàngukaay yeeg yu mel noona ah, incha allah bu dee lu mel na daara nag jëmmi sëriñu daara ba nga xam ne yeeyoo na ko manees na ko koo jox moom waaye daal kenn du jël asaka yàlla tuddal la ay tur ne la joxal ma ko ñii nga romb leen fi joxal leen ko di ko def sa fi bopp ah su boobaa nag loola la yaa ko teg sa bopp day mel ne rek joxe ko asaka wallahu taala aalamu bilsawaab wa ilayhi almarjiu walmaab